li ma doon wax lépp yàgg sëñ Modou mi wax ngeen ko xanaa dañuy fàttali rek bokki taalibe yi jàmbaar ji toog ci yéene ji ñu war a am ci moom te dabaguñ ko ba tey mu yéene jam amoon ci sëñ Moustapha rek moom lañ war a am ci moom pas-pas bi mu amoon ci sëñ Moustapha mi woy pas-pas boobu lañu war a dabu ci moom lu ci bari nag fekke woon naa ko fii ci dëkk bii masuma koo wax waaye tey danaa ko wax dëkk bii bi fi sëñ Basiru mii di ñëw fekkoon na mu metti lool lam fi jële jafe woon na ku ko fii jële ku dul jàmbaar ndax barab bii ñu toog di gàmmu fanaan nañ fee gàmmu bët set ñu yendoo fee sabar ay yoon yoon yoon yoon dana ko fi dindi loolu incident la woon sëñ Moustapha dindi ko waaye taxut woon nag mu dañ ci dëkk bi dañ ko daan defe nu mu leen neexee waaye ki ñëw leeral dëkk bi ba dëkk bi niru li mu war a doon mooy jëmm ji toog ci ak njàmbaaram ci aw fitam ci jomam ci fayidaam ak ci gëm liñ ko defloo keneen ku mu doon rek danga nga wone gannaaw ma jàpp ne ñun ñii waruñoo fus nag ci gannaawam loolu kenn nettaliwuma ko dama koo fekk dama ko daan toone bàyyi bàcci léeg-léegaan ma ne ko seen sabar yi fii la ma fekkoon mu ne ma tuub noppil may may kaf ak moom di ree ndax booba ndaw laa nekk ci loxol sëñ Dame Seck mi bàyyi kii waaye daana wax ne néew yi ma gis doom ja lay xalal daal wax na bis bu doom ja dikkee danañ xam ne woote bi am na borom moom sëñ Dame Seck daana wax loola loolu yi nag jar na kenn ku nekk di ko bàyyi xel fu poroxaan nekkoon démb ak ki ko indi fi mu toll tey kookee kenn warta weranteeg moom ci leen kenn warta xëccoog moom ci lenn lum xool lu ne loolu lañ war a xool lum def lu ne loolu lañ war a def ndax ba mu fi nekk da cee wéetoon te man ko lool nag mu jafe woon lool ndax booba ndaw la te ñim nekkal daanaka ñëpp mag ko ci at bu doon keneen a mu ragal waaye ndigal lañ ko jox ba mu dikkee ndigal loolaa ko tax di mag kenn ku ci nekk na mu jaar ak yow ba mu ngoon gi konteeg yow xamal nga sa bopp ni kii du sa morom kon dama ko war a topp ba dëkk bi mel nii mu mel kon buñ dee ay taalibe <coughs> war a ànd ak moom ci liggéeyu soxna jaara bii moom dong lañ war a déglu lay bëgg-bëggam moo war du suñu bëgg-bëgg fam xool rek lañ war a xool ndax mooy pas-pas bi te pas-pas nag su wérul ci ab jullit daraam wérul te pas-pas weesuwut jëfe ndigal bàyyi tere te loolu mooy charte bi jëkk ci yoonu murit saa su benee ci murit ak murit desatu fa charte bi jëkk ci yoonu murit mooy jëfe ndigal bàyyi tere fal isnu charte fii xabulu chahlu mooy laa tafalu shay bi xayri isni kon ab murit day moytoo jëf lu dul ndigal waaye fu ndigal waddee nag waratul moom boppam fenn ndigal loolu yàggut te moom mii nag ndigalam loolee mu yor day bees rek ndax kenn ku ci nekk xam nga fi dëkk bi nekkoon waaye xam nga li nekkoon ci dëkk bi itam xam nga it fi mu jële dëkk bi xam nga fi mu ko indi tey xanaa gone rek yaa dul xam nam meloon démb waaye mag ñépp xam nañu lim daj soog a yegg si fii tey kenn tungoomu ko mbàkke kenn tungoon ko daa dox raam ci xaaxaam bi ba taxaw kenn jàppalewu ko dañ koo seetaan muy bëtt di bëtt di bëtt ba feeñ kon wallaahi jantum jolloor lay doon tiim ci kaw séen ko rek ku bañ mu tiim la booy boo jóge fi lii la yàlla def lu yàlla def nag nañ ko nangu rek te góor góorlu nag te jege ko nañ góorgóorlu te jege ko te bañ koo daw.